sëriñ fàllu borom njëriñu askan bi di borom xam-xam bu mag bu kenn dootul naatable xam-xamam ci wàllu seet listixaar lasraar ak ñaan sëriñ fàllu borom njëriñu askan bi amu ci morom yow mi rab jàpp wala cat sonal la sa wërsëg tëju loo yaakaar mu tas wala nga bëgg a tukki nga tukki bëgg am ay kayit ngir ñibbisi wala nga bëgg soxna wala nga bëgg borom kër dawal gaaw jokkoo ak sëriñ fàllu borom njëriñu askan bi mu faj sa aajo ci lu gaaw a gaaw seet ak listixaar bu wóor wan la say mbir ba lépp leer ci yow loolu moom ñëpp maase nañ ñi amu ci morom ngir jokkoo ak moom wooteel ci numéro téléphone bi 75 630 71 97 75 630 71 97 ak Serigne Fallou borom njëriñu askan bi njëriñu kese la. amati mbégteeg bànneex di ànd ak yéen yéen ñu ñu tawlu ci 5M TV Sénégal jërë mbokk internet yu 5M TV euh, Sénégal dal leen nag euh, jàmm ci seen euh, chaîne bi nga xam ne saa bu nekk rek yéen a ngi fi toppee li nga xam ne moo di xibaar. lu doy waar lool la nemmeeku ni ki jëmb ci guddi foofe nga xam ne moo di ca kër njaayloo mu di nag benn vidéo boo xam ne jamono ji ñu ngi koy partagé fu nekk ginnaaw nag ay defkati ñaawteef yoo xam ne rek daan nañuy génn ci li nga xam ne rek moo di caméra de surveillance bi nga xam ne rek dañu ko defoon foofee nga xam ne rek moo di ca buntu place ba nga xam ne rek ña ngi ko doon daj ji ñi nga xam ne rek ñoo di defkati ñaawteef yooye nag daan nañuy jot a daj ji boobale place nag daa defay jël la nga xam ne rek moo di ay téléphone waaye itam yàqate la nga xam ne rek moo di place ba yëpp mu nekk nag lu doy waar ni ki démb rek la xew foofee nga xam ne moo di ca kër Ndiaye Lo ginnaaw nag vidéo yi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy partagé fu nekk te caméra de surveillance yi jël lépp li nga xam ne rek ñu ngi ko doon def ci li nga xam ne moo di place boobee ñoom nag euh, jamono ji daal euh, police mi ngi def ab liggéey jëm ci ñoom ñi nga xam ne rek ñoo daj ji boobu la place mu nekk nag loo xam ne jamono ji Sénégal yëpp ña ngi koy waxtaanee jëm ci li nga xam ne rek euh, moo di insécurité mi nga xam ne rek jamono ji Sénégal daan na koy ñàkk lool tax ku nekk rek di addu di lancé li nga xam ne rek moo di message gouvernement bi yees bi nga xam ne rek moo fi nekk ngir rek ñu jël ay ndogal ca loolee nam gën a gaawee ñu àddu wax ci leneen ki nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko mi nga xam ne jamono ji nag mooy limaani jëwriñ yi fii ci Sénégal ni ki tey ji nag daan nay dem foofe nga xam ne rek moo di ca diwaanu Tiwaawoon ànd ak ki nga xam ne rek moo di ministre bi ñu dénk wàllum transport mu di El Malick Ndiaye dem rek siyaare ka nga xam ne moo di xalifa ba di Serigne Mbaye Sy Mansour moom ak ki nga xam ne rek moo di Ousmane sunko tey jii nag daan nañuy amal visite dem foofe nga xam ne moo di ca Tiwaawoon ginnaaw gàmm gi nga xam ne rek ñu ngi koy waajal foofee nga xam ne moo di ca diwaanu Tiwaawoon